asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bakkan sul muhtadin ñu ngi di nuyu di leen jiital ci nuyoo bi suñ alxaaji mbàkk xaadimul xadim di ko ñaan yàgg aku wér aku mucc ak sëriñ tuuba nangu léppam te laafaale ñu ci ñu fas yéene ñëw ci suñu yóbbalu bis bi ko baaxoo defee te nag ñu bëgg a ñëw ci lenn ci lu aju ci ay tekkin ak nit ni muy sàmme ak dundam ba du sànku te loolu lépp sëriñ bi jàngal ñu ko ci nahju xada il xaaj ñu tàmbalee tey ci loo xam ni gis nañ ni jamono dana dox balu lu bari lu diisoon mu woyofal ko ci kaw yàqu seytaane loolu ñu tànn ci lenn mooy lu mel ni ki jumtukaay yi ñuy xoole di ci jëfandikoo di ci def lu baax it waaye léeg-léeg ab safaan it mën na ca am muy lin na teleeg internet ak yëpp aju ci moom sëriñ bi waxoon na ci nax ju ni jëmmi ab gis bët ni muy fàttoo xol it noonu lay fatto ci gis loo xam ni wërta ji lool alxuraanit ba ba tey àddu woon ci xulil muminina yaqudu mina absarihim ñu gis ni kon bët la muy tege ak nopp la muy dégg day def jeexeet lool ci xolam ba koy yóbbee jëf wala muy yàq lenn lum fa fekk yonente bi alayhi salaatu it noonu la ca àddoo woon ca addis ba ni la yansuru inna rajula la yansuru nasratan yanxalu biha xalbuhu kama yanxalul adimu fi dibaaxi la yantafihu bihi abadan nit ki léeg mu xool xool boo xam ni xolam mën na ca yàqoo ba ngir mu jariñooti tey lu koy jariñ wala jariñoo ci dana jariñ lool dana jafe lool ni nga xamee ni der bi ci misaal dir tëbës boo ko joxoon ki ko mën a defar lool bu ko bu ci noppee noon mu koy dindee ba la ca nekkoon deñ jëmmi ab xol it nit ki buy xool yenn xool yi ndax dañ ni jëmmi nit ki ab gisam mu ci xool lu bokkut ak lam war a xool loolu day mel ni tooke jëmmi xeej buñ tooke woon bam saf ba ñu jam ko ci yaram mu dugg noonu mu defi jeex xam ni fu romb day yàq wala ayaasu billahi ab bët la mel te it am na waykat bu waxoon ni wa innaka in arsalta parfaka raidan li xalbika yawman atabatkal manasiru raayta allasi laa kullahu anta xaadiru alayhi wala an baadihi anta saabiru mu ne jëmi nit ki bu fekkee dafa jël bëtam fu ko neex rek sànni ko mu doon ndawam joo xam ne mooy wëri wala fu mu neex rek sànni ko ah dana masa sonn lool ndax dana gis loo xam ni ci misaal yoon danaa ko lii bu ko xool tàmm na portable gis na ci tey loo xam ni kat yoon nee na ko woon lii moom mayuma la ko te nagam tàmm na ko du ko mën a muñu téye xool boo boobaa nu muy def coono dana am ndax bu ko xool day metti ci moom lool te bu ko xoolee it toggoo ci bàkkaar bu mag moo tax di sàmm ab ci xool loo am solo la ci nit ki lum lim war di xool وخدع طرفك تيتين بي أني ونفوف أي بيني ليس شجاه الذي يحمي فوارسه يوم التعاني إذا ما الحرب تستعيل لكن من غدا طرفا أو ظنى خدما عن المهادي فذاك الفارس البطل jàmbaar من ni ko mi ne mooy ku mën a xeex fexe ba gañe ànd ko gàngooram dikkaat waaye moom nee na jàmbaar dëgg buñ koy wax mooy ki nga xam ni fexe na ba ab jisam damm na ko ci lépp lu yàlla araamal du ko ca xool kon gisoo foofu laata muy wax leen rek xadda xaddu tarfi wax kon loolu bokk na ci teggi nit ki jamono yu nekk muy sàmm ab ci lépp loo xam ni yàlla gërëmu ko moom moytu ab bëtam dal mu moytu it xeeti fo yi ndax ku ne gis na portable xeeti yaneen fo ak luy reetaan loo nit ak luy sànq waxtu nit loolu bari ci lool te loolu lépp sëñ bi àddu woon na ci njëkk jumtukaay yooyu di am wala tukathir xaysu kunta lahwa wa daka ma taxarrukin wa laxwa kon njàngalem sëñ bi buñ ci dellusiwaatee lépp loo xam ni lu yàqala lu taxaw ci sunu kanam dañuy gis ni sëriñ bi rëddaloon nañ ci niñ ciy jaare ba mën a jàll ba loola duñu gàllankoor ñu gis ni léeg-léeg it ay jokkalante baat mën na cee am wala tisaare waxi jàmbur ke dégg ko neneen loolu lépp sëñ bi àddu woon na ci lum wax dani wasbir ala sabbi wala tajib ahad wa kun kama qala al adibu wala qad yemu ci jumtukaay man lum ci man di doon rek maa jël tey misaal ci foofu ni ki léeg mu dégg ñu ŋàññi ko bu boobaa sëñ bi nee na ko ŋàññi wa wala saaga wa muñ ko te bu ko tontu nga ne ko waaye kon nu may def damay ñàkk fële mu ne déedéet am na lu waykat waxoon lan la waykat ba waxoon wala xada amurru ala la imi yasubu nii wa aifu suma aqulu laa yaani nii nee na moom de dana romb nit ku ñàkk cërub yiw wala ku soxar mu may ŋàññi ma xam ni man lay waxal waaye man damay wetu rek ni daal gaal xañ na kaneen lay waxal waaye man waxut ak man kon nit ki bu déggee wax doonte ci moom la jëm it moom war naa mën a segg wax ja ba jàpp ni kaneen la wax ngir ak rafetal mu bancaa tontu bancaa wax ndax jëmmi noppi li muy jur ci njariñ laneen mënu koo jur ba wax na ca ni law kaanal kalaamu fiddatan lakaana sukuutu sahaban mu ni isturu laayiba mastataata bi sumtin inna fi sumti raaxatan li samuuti mu ni jëmmi nit ki moom bañee ñu xamal ko dara na taxoo noppi ndax noppi sax jëmmi nooflaay da cee nekk ci ki noppi du sonal boppam du sonali mbokkam du sonali malaaka yi nga xam ni ñooy jël wax yooyu muy wax di ko yóbbu kon gis nañ ni sëñ bi naxju xadaa kada xaaji lim ci indi ndiki lépp lu gaar rek war naa mën a xam nam cey jëfandikoo bu baax a baax a baax ba du ko ca fekk mu ni ba tey wa isaa jaahalaka ahadun fa arid anhu wala simi sumta bu fekkee nit ki daa ca mbir ba waxala loo xam ni warula la koo wax bu boobaa nooy def ah, kii daal xañ na daal xamut sama daraja jëru nga naa ko may nangam xamut sama daraja moo tax mu may wax li moo xam ne yéen a jot tase ci ab bërëb wala daa jël sa wax ko nu dul noonu wala laneen ak yeneen ak yeneen lum ci man di doon yow boo xamee sa bopp rek kala umpule moom waruta tax nga koy xamal sa bopp xam sa digganteeg yàlla gim la xam rek loolu maanaam doy na sëkk nit ki it bokk na ci teggin faawu doomu aadama ni moom di ko teg lu ko metti waaye nit ki it faawu doomu ni moom di def njuum te xam ni matadik doomu aadama moo ko ca yóbbu loolu lépp sëriñ bi dañoo andil nun cee jaar jàll mooy wa in jafaaka faxtamil jafuwatahu wa in hafa faltasturan hafatahu nit ki bu la becci ngalee muy def la lu metti sa xol maltraite jëmmi boo boobaa lam la def nang ko nangoo muñ ci sa xol te yàlla tax waaye bu defee loo xam nag xañ na waaye wëtta jugee ci moom bu boobaa yi nang suturaal suturaal wa mooy waxe ko ko waxin woo xam ni du ci gis boppam du ci mer du ci yëg ni sax maanaam nakate lii da ko ko jublu woon waxin yi dana ci dégge la ko wax waaye xolam du ca jub du ca mettilu dara mu ni bokk na ci ay teggin nit ki jamonoy nekk war nay sàmm aw làmmiñam di ca wax aw yiw rawatina jamono yi nga xam ni li ma joxe misaal ci téléphone yi man ngaa wax tey benn baat suba mu tisaaroo ci àdduna bépp loolu ba tey sëñ bi àddu woon na ci muy wi waawidi lisaana xawlal xayri tafus bihi watuk fa kula dayri saw lami daal tàmmal ko lu baax wax ju baax moom yaakaar naa foofu man di tisaaroo boroom du ca mer ndax wax ju baax moom baax rek lay mën a nekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ni man kaa kaan yuminu billaahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyasmut ñu gis ni léeg-léeg ñu dégg wax yoo xam ni nit wax ko moo xam jaarale ko ci jumtukaay yooyu wala la neen bu deelu am am na bu dee lu amut wala muy lu lëntiit bu boobaa it ba tey siñ bi am na nu ñu waxoon ñu jaar ci lan la waxoon dani wala taqul li ahadin kadabta aw xulta xayral xaqi aw ak aw aktata aw gayraha min kulli shay'in yusqitu walaw sabiyan kaana fa huwa moo xam ci sunna la ko wax wala ci laneen ak lu mën ni doon li mu daal am amut sëñ bi wax na la ne bu ko mukk eh, bu ni waaji de li mu wax tey waxut lu wala day daa juum li muy wax xamu doonte gone lay nee na wax gon ko ko wax rek loola njuumte lu ko tudde nga ko waaye bu nekkee di taltali wax loo xam ne xamu ko mun la loolu ba tey am na noo war a doxaleeg moom fa qul lahu lastu kaza aw kuntu muhtaqidan aw inna ni jahaltu loolu daal moo ci wax ji mooy bu nee wax na loo xam ne xamoo ko neneen kat man xawma ko woon wala nii laa ko xame woon wala nan naneen noonu laa ko njotte woon wala nga wax ko waxiin yoo xam ni dana xam ni jubbanti nga ko waaye du ca mer loolu sëñ bay jaxate doon wax naan du ni la fen nga du ni la nër nga waaye de gis nga sa wax ja muy cor kon yooyu buñ ko bàyyee xel ci waxin wi tontin wi ak ci it ah, gisin bi yooyu ñu ci jot a wax yaakaar naa buñ ko sàmmee njàngalem sëriñ bi ci ñun dana mokk te dana ñu jariñ lu bëree bëree bëri wala danañ jariñ ci lépp suñu dund kon xaj na tey dañoo jëloon tomb yooyu bu ëllëgee ñu càmbaraat yeneen ci dëppale ko jamono ji ak nun ci mën a jariñoo waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu